Bonsoir, bonsoir à nos très chers téléspectateurs de Walf TV. Bonsoir au monde sportif sénégalais. rendez au lundi, lundi, un tour d'horizon à air de jeu. On va suivre les disciplines, bien entendu, ce qui s'est passé le week-end du côté de Dakar. On va sortir de Dakar, aller à Zimbabwe, Tunis, notamment en Tunisie, où Tengue Football Club est revenu, si c'est avec la défaite. Dañ ko de 2-1, mais euh, champion Sénégal man moom lañ désigné champion il de champion dañ ko qualifiés pour une première participation à la en phase de poule de la coupe de la de de la, de nekk ni première parce que depuis Guédiawaye depuis JA euh, équipe bu Cheikh Tidiane Gomis benn club sénégalais réussir woon loolu depuis 2003 2004 il faut préciser yàgg na aujourd'hui euh, Teungueth réussir na loolu Teungueth moom si on me dira que c'est une défaite mais il faut plus saluer la performance des joueurs te yaakaar na bu ñu euh, concentration bu tuuti parce que ñoom ñoo njëkk dugal mënoon nañu yaakaar ne soit au match nul ou la victoire ramenée de Tunis mais il faut rappeler que c'est un tournoi un mini tournoi de quatre équipes Teungueth après day jogante la ak euh, di Mouloudia Alger dina daje ak euh, Zamalek bu Égypte kon partaguñu dara dañuy recevoir tous les trois adversaires ici à Dakar et je pense que la lecture qu'on va non qu'on en fera peut tant soit peu faire espérer une certaine bonne performance de Teungueth sur dans cette Ligue des Champions Après Djaraf, forcément Djaraf, on va en parler, par exemple, tour de cadrage, Djaraf est revenu de Zimbabwe avec une victoire de match extérieur. cest dire que Djaraf est aujourd'hui à 60 qualification euh, pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Nekk na lu neex guule parce que tout simplement dal na xel parce que Djaraf tamit il faut le dire daawul am premier tour la deuxième tour pare nañu mais fu mu nekk nii on est en tour de cadrage parce que quand avec euh, Malik Daf, ça fait espérer. On quitte là-bas, il y la performance du côté de Dakar. Ici, au Sénégal, excusez-moi, c'était à Thiès précisément le samedi. Nous sommes équipe nationale de U17, nous sommes KDI. Ils ont survolé le tournoi de l'UFOA à 4 matchs, 4 victoires, 14 buts marqués, 2 buts encaissés. Nous avons performance de KDI qualifié à la Cannes, mais c'est toujours remporté trophée. Ce n'est pas une parce que y a 2 ans, 3 ans Malik Daf a remporté ce tournoi, Malik Daf a été à la Cannes U17 et là, n'eût été le manque de concentration et peut-être de lucidité, on pouvait revenir avec ce trophée. Aujourd'hui, Malik Daf, il faut le dire, est parti du Diaraf, il est parti du touche du Diaraf pour se consacrer à l'équipe nationale. Pourquoi On va en discuter avec nos invités. Forcément, quand on parle de la pelouse, on va descendre du côté de la piste avec l'athlétisme. Athlétisme, depuis quelques temps, Covid, Covid, Amour, mais n'empêche, ils ont pris toutes les dispositions. Madame, tey ñu ngi organiser les compétitions maa ngi laaj sànq ancien directeur technique national est-ce que seulement Dakar la de Dakar mu nekk di organiser mu ne ma déedéet c'est toutes les ligues du Sénégal aujourd'hui ñu ngi organiser seen i compétition autrement dit tey président Sarawali Bara ñu ngi si yoonu liggéey loo xam ne boobu peut-être avant quatre ans peut-être six ans parce que les JOJ c'est en deux mille vingt nañu yaakaar am dara parce que am nañ dara déjà il a une base lui Mendy, il fait rêver d'une médaille parce que parce que c'est un garçon qui travaille très bien. Voilà présenter ce modèle de jeu, il faut pas occulter, on va pas oublier, on va parler de cette campagne africaine où est engagé Maître Augustin Senghor. Il était à Yaoundé, avant de partir à Doha. Augustin Senghor est en train de sillonner l'Afrique pour présenter sa candidature. Qu'est-ce que ça donne devant ses adversaires aujourd'hui et qu'est-ce que le retour d'Amad quest on a envie de le saluer parce que technicien, Parce qu'il charrie tout ce qui est technique. Bonsoir Dété. Et l'athlétisme. ça va ñu ngi góorgóorlu wax dëgg yàlla. Mhm. kontaan naa partage waat plateau bi euh, ak président Ablaye Thiam ak sama xarit Cheikh Tidiane. dëgg yàlla c'est un plaisir de partager le plateau avec vous merci. man sa laa de man sa laa da ne ak sama xarit Cheikh Tidiane du bis. waaw sama xarit la Cheikh sama xarit la. parce que ah, man waaw yow sama xarit nga mais Cheikh. Cheikh sama xarit la parce que vraiment dafa am lu ñu dafa am lu ñu lu ñu boole. Ah. <laughs> mais mais mais mais yow sama xarit nga mais xam nga xarit dafa am bu gën a fort. balaa bu set jàmbur bu a fort. non non non non uyu ma xoolal bul dugg ci xool doo ko dugal ci. moom laay wax la. non non non li ngay def nii kenn du ko def. bul dugg ni la waaye nit ki amul droit ne kii sama xarit la. li ko la na man ne ma mën a nangu. suñu xarit ne. samay xarit ngeen. ma ne waaw ba léegi ba tey. ma ne ba tey samay xarit ngeen appartenance waaw. ba tey samay xarit ngeen. mais mais Nicolas. Cheikh Tidiane dafa exceptionnel. voilà jeex na. Abdoulaye Thiam yow sama xarit nga bëgg waayu. man Cheikh Tidiane Abdoulaye Thiam man loolu yàgg na. foo sa xarit foo sa li. bon j'ai cru comprendre que l'émission se fait en. français ou en wolof. mais tu te permets tu ah a des le bi. non si vous voulez qu'on y va en peul il pas de problème. dama ragal rek xam nga dañuy si wolof bi rek comme 90 pour cent de la population sénégalaise. kan si kii non kii njaagu la. est ce que ki sama goro la Nicolas boo fi indi problème dëkk bi yëpp fu ma tourné dañuy naan ana sa xarit Cheikh Tidiane Gomis léegi nag bëgguñu xam ne au delà de bi sama goro la ba ma indil problème nag man mënu ma jógee Fuuta. je traverse l'océan Atlantique ma dem ba Praia ba pare nag du ma respecté ay Gomis ak ñoom Mendy ay Silva ak Mendoza bàyyi rek bàyyi ma si biir Cap-Verdien yi rek dégg ba may indil problème nañ def suñu émission ñu avancé. maa ngi lay fay Nicolas di rafetlu aussi ñëwaat ci émission aire de ñëwaat ci kër bi nga xam ne képp ku journaliste mun nga ko tiitro parce que bu amee tey possibilité wax. lu ñu neex di commenter c'est parce que am na ñoo xam ne ay mag ñu fi nekkoon dañu xam ne tout à fait tout à fait si Lamine Niass si la bokk sama ancien patron Babacar Touré si la bokk mhm. ay pionniers la ñu woon on les appelait d'ailleurs les au-delà des quatre mousquetaires donc euh, tey damay am mbégte contentement aussi Ahmad bi ngay wax nii xam naa ko depuis l'université mhm. depuis université laa xamante ne woon ak moom donc euh, ah. ñëw aussi ñu dajawaat encore dans le milieu sportif tout à fait Cheikh Tidiane Gomis euh, je l'ai déjà dit 19 ans. un des doyens de la presse. voilà qu'on chemine ensemble. doyen rendre à César ce qui appartient à César. voilà la. yenn affaire yi bàyyi ko rek. Oh, ñu def émission. surtout thème yi nga développé c'est important. donc dinañ bàyyi digression yi ñu dem si thème yi ñu dem. ah ñu dem ok ok d'accord naa d'accord président de l'ANPS suñu président. waaw. Cheikh Tidiane waaw maa lay nuyu di nuyu suñu euh, gan comme que xam nga yow euh, euh, sa malchance moom mooy. ku ñëw toog fii rek ndeysaan euh, xam nga day ànd ak man euh, loolu nag mënoo ci dara yàllaa ko tudd di nuyu euh, coach man coach laa koy wax Amadou di nuyu. je suis d'accord récitement je suis d'accord coach la waaw waaw coach mhm. man laa koy wax. yeneen ay nomination la DTN Tata ay nomination mais coach la waaw. Mhm. un très bon coach. di nuyu ki nga xam ne moom mooy sama gox xam nga xam nga yow message boobu nga am. Eh, Ablaye Thiam na nga def. maa ngi yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant jërëjëf waay kontaan naa eh, kontaan naa ni kër ga. waaw ah. kontaan naa. Praia Praia. man ni nga kër ga laa wax. Praia Praia. waaw demal sa émission. ban kër sa émission. d'accord <laughs> maa ngi dem émission je disais tantôt on va démarrer parce que on a constaté à Thiès euh, Cheikh équipe nationale et cadette gagné na. Euh, Mali 2 buts à 0 balaa muy joué ak Mali en final njëkkoon na dóor a ñëw dóor a Mauritanie 4 ñëw en finale gagné Gambie 2 à 0 dugal 12 buts 14 buts il faut le dire euh, cette équipe du Sénégal 14 buts marqués et 2 buts encaissés ça a été une réelle performance Ablaye Thiam. Oui, c'est une réelle performance mais ça ne devrait étonner personne parce qu'ils ont sur une piste Euh, très ascendante avec un euh, coach aujourd'hui Malick Daf Malick Daf boo xam ne ak acquérir na benn expérience expérience boo xam ne am na sax résultat ci euh, tour préliminaire bu CAF bi mhm. balaa ñuy officialiser désormais que ne day jógee Jaraaf de Dakar defe naa dinañ ci dinañ ci expérience am ñëpp gis nañ ko xarañteefam d'abord il a été un très grand joueur de football keroog bi mu ñëwee fii def match am contre euh, euh, San Pedro ñu bëri xam nañu effectivement Jaraaf football lu woon match am donc mm-hmm. performance bi mu def à Harare ñu ngi koy bëgg wax nii rek mais bu ñu fàtte bu amoon solo bi surtout c'était nga ñëw sa dëkk nga perdre tu permet nga déplacer dem Abidjan ak conditions yi ñu xam yee yëpp mm-hmm. football à ci Afrique mm-hmm. parce loolu aussi il ñu wax si Euh, France ak Allemagne dund nañu trois guerres ñetti guerre def nañ ko dont deux guerres mondiales il y a eu plus de soixante millions de morts te tey jii France bu ko neexee day jógee dem football Allemagne ñibbi te dara du am. tout à fait nit ñi il faut que ñu dépasser yooyu. Mhm. man xeex bi nga xam ne Sékou Touré walla Senghor wala Modibo Keïta dañ ko doon xeex ak Mali ak Guinée loolu c'est dans les années soixante contexte bu défini. Mhm. africains bu ñu buggee avancer. il faut ñu jógee ci loolu. tout amul benn njëriñ nga war a dem si benn dëkk dem di fubali ñu lay buntu xatal ak di dugal si hôtel bu baaxul ak di la jox lekk pour sa biir daw ak ak yi kenn xamul. loolu kaaf moo ci war a taxaw xar ci tànk tubéyam. Mhm. boo ñëwee ci dëkk nga ñëw fubal parce que fubal africain loolu rek moo koy naat arbitre ce n'est pas possible arbitrage yi moom on va parce que sénégalais dañ jàpp ñoom arbitrage daanaka mosu leen favoriser loolu ñëpp gis nañ ko léegi nag. toll nañ si jamono boo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu buggee loolu yëpp mu deñ xam nañu li leen desee def Afrique aussi il ne faudrait pas que à chaque fois bu ñu amee ay arbitre sax yu gën yu xarañ kenn mhm. dootu leen gisati ci suñu championnat mhm. ñoom ñëpp dañuy dem seen yoon tout ñu ngi nekk si séminaire yi ñu ngi nekk si yeneen ay affaire doo leen sax gis si championnat locaux yi parce que loolu aussi liy gën a naat sunu sunu sunu sunu arbitrage di leen defaraat bu baax a baax. ku def deux ans trois ans mais parce que affaire bi fo arbitrage aussi c'est de l'argent. tout à fait parce que boo gisee tey jii ay gisee ay ay ay ay ay ay championnat européen yi. Mhm. ay arbitres yu gën a xarañ ci Europe yu gën a xarañ ci adduna bi yëpp ñu ngi nekk di ko arbitrer c'est parce que dañ leen respecter jox leen seen gëdd di leen fay ñu mun a dund. ci seen am professionnalisme donc lu ci des nag mooy kaaf moo war a def kéem tolluwaay kattanam ba ñu bañati di wax ne. arbitre bi arbitre africain la ba ñuy dutee ci doxalinam ñu dutee ci ay. lu mu mun a taxawal. alors que un trio sénégalais vient d'officier la troisième place le troisième match de classement ah, de la coupe du monde des clubs yoo xam ne amoon na Doha y a pas c'est dans dans dans le week-end là bi nga xam ne euh, équipe et puis ce qui est beau il africaine qui était en finale notamment qui a remporté le match mais on n'a pas parlé d'arbitrage autrement dit ça parfait. arbitrage bi na avant de revenir avec euh, mes invités si l'un de mes invités bien on passe à Thiès bu élément Ibrahima Ndiaye nekk na en place Cheikh ñu dellu si bilan bi nga xam ne Ibrahima Ndiaye defal nañu ko si tournoi UFOA A de concernant les cadets ok l'élément Cheikh dit pas en place DT DT il dit coach oui dit coach Amadou Diouf oui on a même si je pense que en athlétisme mun nañu wax loo xam ne pour pour on parle aujourd'hui de performance l'équipe nationale cadette du Sénégal bi nga xam dafa survolé en 4 matchs 4 victoires 14 buts manqués et 2 buts encaissés nekk na euh, ndam boo xam ne on peut pas en douter. waaw man xam nga dama bëgg trop euh, performance petite catégorie euh, soo ko gisee day am ne day wone ne am na processus bu ñu jaar. Mhm. te lool dafa am njëriñ xam nga ñoom ñoo ko jëloon édition ba le passé. tout à fait ñëwaat jëlaat ko c'est-à-dire que am na lu muy wane que ne y a travail qui est xam nga boo xoolee football actuellement pour la petite catégorie. Euh, dañu am ay centre de perfectionnement yoo xam ne moo leen di mën a permettre ñu fay dem di football suba ba ngoon jot xam nga nag boo duggee ci usine de transformation bi defar li nga war a def mhm. boo génnee ci euh, front back bi mooy boo génnee war a wane mhm. wax dëgg yàlla li ngay gis dañuy wane ne ñoom am na fu ñu doon liggéeyee loolu moo waral li nga gis ni mooy encadrement bi baax na am na processus gis bu processus bu ñu ko respecté rek résultat bi parce que gis nga la performance c' est tout un processus. tout à fait processus boobu boo ko respecté rek. évaluation ci cappaandaw ba da ngay am dara. man fekk kontaan naa trop ci performance su petite catégorie surtout les footballeurs dañ ko manqué woon a presque cinq dix ans ci ginnaaw. tout euh, waaw man euh, ci performance bi dama ci relever euh, maanaam ñetti yëf ñetti yëf yi ma ci relever mooy déjà ñu ngi ko doon wax léegi. Euh, moom mooy maanaam processus bi bu ñu fàtte ne que équipe bi gagné na ko balee passé. ak yeneen joueur euh, waaw waaw fii dafa jëlaat yeneen joueur yu bees doo dégg la ma la xam nga euh, donc rek processus la d'accord naa ci mais coach processus boobu li ko indi man foofu laay waxee. Mhm. li ci ëpp li ci ëpp tey jii ak loo mun ti wax ci ñoom il faut que nga nangu delloo leen jukkal. moom mooy les centres de formation. absolument xoolal équipe bi. absolument 23 euh, joueurs 23 yëpp amu ci kenn koo xam ne nekkul ci centre de formation. boobu tamit y' a y' a un point d' interrogation. ñu am na point d' interrogation. parce que tout simplement centre de formation ñëpp fi nekk. y' a des clubs la formation yoo xam ne seen joueur mën na ci mérito. je suis d' accord jàmbaar li baax na. waaw séance foot li ñuy def daa baax na. Mm-hmm. mais direction technique nationale bi ñu fi nekkee. Mm-hmm. et je pense war nañu mën a wër. Mm-hmm. dem bay Ziguinchor. Casa Sport am na équipe cadette. non fële am na équipe xam fii am na équipe yow ay équipe xam nga xam nga fu mu nekk nii li ñuy wax gis nga booy xoolaati lii ba indi yooyu yu ci bare mën nañ ko indi. voilà mais dama ne la ci performance bii bii bii bii bii bii. ok équipe bii gagné. loolu yow loolu ngay wax. am na ci yu bare ñu ci mën a wax. dëgg la waaye dama ne. Euh, centre de formation yii nga xam ne parce que buñu fàtte ne lenn dafa am de au moman yu muy jël booy yi leen di yóbbu en préparation. il y avait pas de championnat. pandémie. amuloon championnat il a fallu que ci lan la mënoon sukkandiku mooy dem ci centre formation yi. parce que ñooñu ñooy entraîner toute une journée. dañoo am benn préparation boo xam ne bokkul ak les clubs traditionnels. loolu la. il faut loolu tam nit ki nangu loolu. tout à fait moom mu dem jël ñooñu denc leen. pendant des mois. dugal leen ci centre Guéréo. Mmh. sa euh, loolu tamit bokk nag euh, ci loo xam ne. moom moo indi lii. Mmh. dégg nga ba tax na. bu booy di jouer. da koy sens nettement. tout à fait ñii dafa am gis nga gis nga euh, bu fekkoon ne taabal taabal la. Hmm. kon Mali daf ñuy rey. absolument xam nga lu tax. Hmm. boo xoolee ci final bi mais yow Mali yi ñoo ëpp doole suñu joueur yi benn. Hmm. dañoo mën a football. absolument mais il a fallu que. booy li ñu def. ak euh, liggéeyu euh, kii xamaay daal moom mooy que moom lenn rek na def moom mooy. dégg nga pousser pour malien yi. def ay faute boo xoolaat ay faute boo calculer faute yi ñoo malien ñoo ëpp lu ñu def ay faute ñu ko seetaan xam nañu ñi nekkoon euh, la jox ay ñoom ñoo ëpp lu ñu def ay faute léegi ci faute yooyu nag le Sénégal euh, te maîtrise du ballon bi téye bal bi xam nga téye xam nga lu may wax téye bal euh, maanaam foo xam ne day am attaque rapide ak attaque placée dañu xam moment bi ñuy defee attaque rapide ak attaque placée et aujourd'hui aujourd'hui tey ji ma ne su ñun malheureusement ñun suñu junior yi ak suñu cadre yi ñoo dàq football suñu senior yi collectif laa wax wax ma individuel de collectif ñoo leen dàq football parce que au moins dañuy dem A dem B dem D dem ba Z. senior yi. dañuy tëb ñëw Z. il faut dire la vérité ah non ah jaxase doo xam alphabet bi duñ ko respecté mais c'est ça mais mais ñi nekkoon démb man man boog. man boog man man man bi ma seetaanee. dama toog xool ma bi man ma xam ne que ñii. vraiment ñii comme ni ngay waxee dafa am benn processus boo xam ne dañ ko topp. et loolu tey jii vraiment lu baax la. on reste avec Malick Daf euh, Cheikh Tidiane Gomis il était sur les deux fronts nekkoon na Jaraf. nekk na avec le cadets tey ka Jaraf même si l'équipe a gagné. à Harare sans lui, mais il a fait la préparation avec le Djaraaf. Il faisait en même temps la préparation avec euh, les U17. Mais la performance est là. Djaraaf qualifié na euh, équipe U17 qualifié na. waaw xam nga technicien boobu. waaw euh, moom laa lay expliquer ci Malick Daaf il faut que ñu xam benn affaire Malick Daaf euh, ay résultats rek la def en petite catégorie deux fois vice champion d'Afrique u ak Koto. Mm-hmm. il ne faut pas oublier ça. <laughs> Malick Diallo oui en 2015 2017. voilà euh, c'est lui encore qui revient mu jëlee tête tamit ñii jël deux fois tournoi UFOA bi qualifié benn yoon euh, ki bii mooy deuxième qualification. donc ce qui veut dire Malick Diallo kenn waxatul kenn kiiwatul euh, maanaam ay ay ay ay ay ay xarañteem ci ci côté boobu. bon dafa amoon nag benn problème problème bi mooy que y avait le Jaraaf. yaa y avait le kii dafa tombé compétition yi dafa tombé dégg nga ba tax na. il fallait faire un choix. waaw il fallait faire un choix et surtout fédération sénégalaise de football génne na euh, maanaam benn dogal ba saa àgg ne. da léegi nag mars à partir de mars. da ngay tànn et moom mars jotagul moom mu xam ne mars la coupe d'Afrique bi ah léegi nag foofu nag il était euh, kii dégg nga il fallait que vraiment euh, moom mu choisir moo nag dafa choisir topp li parce que fii dans cette affaire la foofu nag. man foofu nag man man man foofu laa xawee am ay euh, kii parce que Malick Daaf qu'on se dise la vérité li muy gagné Jaraaf gagné wu ko en équipe nationale c'est pas Jaraaf li mu fay gagné moom mii mu ngi may dégg xam na li may wax li mu fay gagné gagné fii pigiste la fii salarié la. fii dafa am salaire. léegi nag mu bàyyi kii bi nag mu euh, euh, léegi mu bàyyi salaire bi léegi mu ngi dem léegi nag man c'est là laay interpellé nag. la Fédération sénégalaise de football. Ah non, ça c'est ça c'est une grosse connerie ça. Hein? Je suis désolé, si c'est tel tel est le cas euh, c'est une grosse connerie. Moi moi c'est c'est ce, ce raisonnement-là si Malick l'a fait. Mm -hmm. S'il choisit d'être pigiste à la place d'avoir un salaire assuré. Non, je pense qu'il a été dit. Vas-y, vas-y. Non non non. Vas-y. Ah. Moi au début, je faisais partie de ceux qui disaient que mm -hmm. dañu war a permettre suñu ay entraîneur comme amuñu si c'était la crème la bariwul woon. Mhm. ñu permettre leen et ñu nekk entraîneur équipe nationale. et ñu nekk aussi en même temps di yore club. Mhm. parce que du guleet ñu koy gis ci àdduna bi. Mhm. sauf que dans nos pays les gens ont constaté qu'il y a souvent des conflits d'intérêts fii lu ci laxasu moo bari si vous vous souvenez très bien il y a même un journaliste sénégalais à Demba Diop Aline Badara Koulibaly ABC à l'époque pour ne pas le citer l'AS qui est venu qui a osé poser cette question à ndem si yàlla. Euh, Karim Séga Diouf on a constaté que vous privilégiez dans les sélections dans la sélection vous dirigez les gens ki sont à Yara à Yarax. Tingé je crois c'était Yarax. mais ça ça en pige là. ils nous ont les journalistes dans les vestiaires moi j'étais là j'étais encore reporter donc ça. à certain moment donné les gens ont fait le holà on dit il faut qu'on comme tout le monde suspecte tout le monde parce que là tu es en train lui ce que, le son raisonnement moi je le trouve très très linéaire oui. cest à euh, euh, Daf il s'est basé sur deux centres de formation qui nonobstant la Covid ñoom dañuy tàggat seen ay booy yëpp mu dem tibb foofu ay joueurs mais d'autres pauvres qui sont de Matam qui sont de Ziguinchor qui vont se dire vont se dire mais pourquoi on n'est pas venu chez chercher mais la réalité c'est que quand même ñii ñoo gën a structuré aussi loolu mooy ñoom ñoo gën a structuré donc boo nekkee di ŋarale ci yenn yooyu noonu gars yi di suspecté que peut-être mun nga jël joueur jaraaf nga bàyyi joueur Tingéej donc da ngay bàyyi club bi suspicion bi mooy tax nag ci fait maintenant au choix maintenant si choix bi man foofu laa mënul comprendre su fekkente ne noonu la demee. parce que tamit nag euh, il faut qu'on se dise euh, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Malick Daf magum jëm la. il a sa famille à nourrir. fédération sénégalaise de bu ko nee da ngay tànn diggante équipe nationale bi ak jaraaf il faut que fédération bi di ko jox salaire chaque fin du mois. fa laa doon ñëw. non non non foofu laay wax c'est pourquoi je dis. la logique de Didier de Cheikh Tidiane je suis jusque là mais euh, le caractère pisiste moi je ne peux pas comprendre ça. si c'est ça je ne peux pas le comprendre nous sommes journalistes nous devrons faire des investigations pour comprendre exactement. est-ce que Malick va être payé chaque à l'image de Aliou c'est ce qui est sûr à l'image mm-hmm, mm-hmm. il aura des trucs de cotisation sociale yëpp. Mm-hmm. caisse de sécurité sociale IPR IPRES IPM tout ce qu'il faut. lui donne des garanties. parce que munoo maa wax ne il faut ma tànn diggante Jaraaf comme Jaraaf aujourd'hui quand même c'est un club structuré boo nekkee entraîneur Jaraaf c'est sûr que tu n'es pas de Champagne. ou tu peux être par par SMS ou bien par Orange Money. <laughs> non qu'on se parce que loolu moo fi nekk ndax aussi di voilà nañ wax ji da mu leer nañ donc Cheikh Cheikh payer un entraîneur tout à fait maintenant doit choisir parce que quand même la vie sportive d'un entraîneur ce n'est pas le bon vouloir du président non c'est lié étroitement à tes résultats tout à fait Malick Daf lu mu musoon a nekk très grand joueur yëpp def jaloore Gorée Augustin Senghor nekk président fii bu deful résultat ci équipe nationale bi dañ koy dax amul sax wax am na ku ci t'appelle Mourinho ku ci t'appelle Lippi ku ci t'appelle loo tuddal lu la neex. tu fais des résultats on te conserve. mais Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane n'a pas fait de résultats. tu laisses la mais Ablaye Thiam en tant que journaliste sportif. kon yow xamuloo ne. qu'au niveau de la euh, du football sénégalais. Mhm. y a benn kenn rek benn entraîneur rek moo am salaire. non je sais. <laughs> non non je sais non non parce que yow non non parce que benn entraîneur pour euh, damay confirmer man li ma wax dama ne. ñoom ils sont payés par campagne. mais c'est ce que je suis en train de dire. loolu laa lay wax loolu laa indi euh, kii loolu moom mën na wérante amu fi de. non Cheikh on s'est pas compris on s'est pas compris. mais léegi je n'ai pas dit que loolu amul dama la ne. waaw jusqu'à une période récente c'est ça. waaw mais bu ñu demee ba wax nit ñi da ngay tranché. merci. non attends rek surtout que. Mhm. Aliou Cissé. signe c'est une incongruité sénégalaise. trois tiers le premier tiers s'appelle Aliou Cissé le deuxième tiers employeur bi s'appelle fédération sénégalaise de football. Mhm. mais le tiers payeur s'appelle état du Sénégal. waaw c'est pas la fédération qui paye Aliou Cissé. état du Sénégal sa dërëm sama dërëm dërëm Augustin dërëm Sayer Seck dërëm keneen ak keneen. même kii di jënd bon Albert bi y a un taxe indirecte qui est versée xaalis boobu la ñuy jël di ko fayee Aliou fédération nag aujourd'hui macha allah war nañu mun a fay un entraîneur. dogal boobu la jël. ma préciser ma préciser donc su Malick tamit ah, Malick tamit doful Malick tamit doful Malick ne va pas accepter. non ma préciser peut-être day ndaw. nga naan damay dem di nekk piste. ji may fay si campagne jot na. campagne bi bi jéegul après man ma ñëw ma on apporte un point d'éclaircissement. quand on prend la le la a été carrément dit par rapport au choix qui va être fait c'est-à-dire bu dee entraîneur bi tànn na jël sélection auparavant daawuñu leen fay. mais bii yoon boo tànnee ne équipe nationale kese ngeen rek. dañ la dañ lay fay. voilà loolu la wax. ci la ñu naw ci la ba mu pare ci la naw en son temps. démarche Koto ba ñu ne tey bu dee loolu am na. bu dee loolu am na Koto dañ ko war a def ay rappel parce que le seul qui avait accepté en son temps toog nekk sélectionneur. non kooku c'est une question. non si la rétroactivité. quand il faut pas qu'on entre dans à une certaine époque Koto a choisi. ça on est revenu mais la rétroactivité quand même ça c'est un autre problème. ce qui est important aujourd'hui soo choisir équipe petite catégorie. qui perd là est-ce que qui perd ou bien c'est le Jaraaf qui perd. mais avant boobu Nicolas avant boobu il faut que man ma wax peu euh, man bi may wax ne. damay interpeller fédération mooy que. il faut euh, fédération ñàkkul xam nañu réalité wu club bu nekk. ñu fay toog comité exécutif augustin ba wàcc pour xam nañu il n'est pas il n'est pas donné parce que des fois dañuy am nañu décision yu ñuy jël te dii non am na décision yu ñuy jël devant comité exécutif te dañuy attends quand ils prennent cette décision est-ce qu'ils ont je la réalité des clubs c'est vrai d'accord mais mais mais xool ci cas bii laa wax xam nañ ne xam nañ ne yenn entraîneurs yi fii entraîneur bi gën ndaw fii mu ngi am au minimum cinq cent mille championnat Ligue pro waaw Ligue 1 lu mu dee dee 500000. te léegi nag man xamal sama problème lu tax ma ne inter dama ne euh, par exemple xam nañu tey jii Malick Daaf par A ou B parce que Cheikh sec mu ngi ci comité exécutif bi xam na ñaata lay fay euh, saay kon nee na bu ñëwee ba toog nee ne toog pour ñu wax salaire di waxtaan ak Ablaye Thiam ne la eh, léegi nag bàyyi nga jaxaar léegi salaire. ah dañuy bàyyi xel ne kii dafa bàyyi fële buñ koy jox nañ ko jox loo xam ne mu méngoo ak loolu wala lu ëpp loolu. mais c'est ce que j'ai dit. nous disons la même chose. voilà j'ai dit mais Malick. Mm -hmm. Malick quand un choix. Mhm. wax dëgg yàlla ne va pas cracher. sur 500 000 francs un demi million par mois. nangu parce que tout simplement c'est l'équipe nationale du Sénégal ñu koy fay moyen. moom n'a pas de sens. <laughs> Malick ne va pas en tout cas man bu ko defee nag je vais le trouver on va ou je ne sais pas moi mais le Daf Kam il da ci génn si il va de chez nous là. revient on revient euh, souffle le de souffler les footballeurs souffle le de laisser les footballeurs souffler un peu on du côté la piste athlétisme. DTN oui Chatignac parlait tantôt de coach oui coach Amadou euh, l'athlétisme a repris la Ligue de Dakar on est déjà à six journées. très bonne de très bonne performance il faut le dire. Cheikh bu élément Al Khahri bi c'est en place ay ay li amoon euh, samedi di côté de Léopold Sédar Senghor ñu jot a seetaan exactement lan moo am sixième journée bi la l'ADAC muy l'ADAC Ligue athlétique de Dakar euh, performance amoon na y a le directeur technique régional ki nga xam ne il est revenu sur la performance il faut le dire mais surtout c'est un bilan des six journées organisées par l'ADAC Amadou mooy ne sànq du Dakar mooy organisé c'est toutes les régions autrement dit malgré la pandémie malgré mbas bi fi nekk athlétisme football sport basket ay sport mu ngi reprendre bu baax a baax même si on déplore encore l'absence du public parce que public mooy tax nit ki di compétir public mooy tax performance yi am surtout athlète bi football day bëgg ko seetaan on va du côté de Léopold Sédar Senghor Al Aïri Aïdara lan la fa jëlee ligue d'athlétisme de Dakar amal na juróom benneelu bëccëgam niki samedi bi ñu weesu ci stade Léopold Sédar Senghor athlètes yi ñoom nag wone nañu seen bopp ci juróom-ñeenti épreuve ak niveau bu am solo looloo waral Sara Wali nekk njiital fédération sénégalaise d'athlétisme di ci kontaan lool. ma ñëw euh, ndax euh, compétition tey bi. dafa dafa xaw a particulier ndax euh, athlètes yi nekk ci centre international bu Dakar bi dañ participer ci compétition bi te ñooñu comme dañu nekk ci condition yu baax buñ ñëwee dama yàq dama mën njort ne daañ yëkkati niveau compétition bi médaille olympique bi di Amadou Diaba kontaan lool ci performance yi nga xamante ne athlètes yi nekk ci centre bu mu jiite def te nee ne loolu dina tax te athlètes yi yu mun a am compétitivité ci seeni biir waaye tamit nee na dina baax loolu ci yeneen compétition internationale yi ñëw waaw li may commencé bon féliciter athlètes yu yu nekk si centre bi athlètes yu nekk si euh, yeneen club yu daw tey parce que soo gisee centre bi am avance si ñoom di ñu am ay moyens yoo xam ne ñeneen ñi amuñu ko donc moo tax euh, may woo woolu woolu ñi nga xam ne ñoo ñu mën a jàppale war a jàppale athlète euh, sénégalais ba nga xam ne ñu mel ni comme ñu mel ni ay Gina Bass ñu mel ni comme euh, Louis François mel ni comme mel ni comme Ibrahima donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne ne nañ si waxtaan a président Sarawali. Gambien bi Gina Bass ak sénégalais bi di Louis François ñoom wone nañ seeni bopp ak performance yu mucc ba man tey kontaan naa because suma rek personnel la so su ma ko dawee si deuxième compét so loolu baax na because ama concours noonu. waaw mais objectif c'est facile comme année bii puisque Covid bi nii c'est un peu difficile mais sama objectif mooy être champion d'Afrique cette année-ci faire les minima aux JO et de passer au premier tour. gannaaw distance yi ñu jot amal ci tartan bi nag yi ci mel ni cent dix mètres et cent et cent mètres plat quatre cent mètres plat mille cinq cent mètres ak relais quatre fois cent mètres amoon na tamit triple saut saut en hauteur ak lancer du disque juróom-benneelu bëccëg bi nag ñu jàpp ni am nañu record participation club yi waaye tamit performance yi ñu jot a amal ay performance de niveau mondial dimanche bi di ñëw petite catégorie moom mooy wàcce ci piste bi. merci El Khayri on l'a suivi ensemble DT 112 qui est là-bas yaa ngi woon foofu jota seetaan du jota am bon je dirais pas raté woo benn compétition boobu léegi ban lecture nga ci am. waaw am satisfaction parce que ñu ngi ci sixième journée euh, je pense que seniors yi petite catégorie yi ñu ngi ci seen première journée. je crois mm -hmm. que vraiment sentiment de satisfaction parce que am nañ ci ay performances. Euh, comme ni ñu ko waxee ci reportage bi centre international bi aussi participer nañu ci compétition yi. Mm-hmm. mu nekkoon vraiment un plateau très relevé parce Euh, réaliser na son record personnel à 11 secondes 13. je crois que 100 mètres 100 mètres daaw daaw defoon na indoor elle était quatrième au niveau mondial. Euh, compétition en salle donc boo amee ku mel noonu mu nekk ci compétition bu mel noonu dina permettre athlètes sénégalais aussi ñu ñu ñu ñu évoluer je crois que même góor ñi aussi euh, bi ci gën a bi ci gën a feeñ c'est Fallou Galas euh, def na 10 cinquante 57 donc c'est vraiment une performance. Fallou Galas euh, à Saly Fallou Galas Niang je crois c'est une performance à saluer euh, participation bi aussi participation massive la club yëpp wax dëgg yàlla instant bi may wax daal wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñu ngi converger vers l'objectif c'est de relever le mm-hmm. défi je crois que instant bi foofu la ñu toll te ñëpp jàpp nañ ci gis nga mm-hmm. président Sarawali mm-hmm. gis nga le directeur du centre El Amadou Diaba ñun ñëpp ñu ngi converger vraiment vers l'essentiel et gis nga lig de Dakar avec le président Bara ñu ngi ciy liggéey 400 euh, mètres hommes aussi am nañ ci ñaar ñoo xam ne aussi am nañu niveau africain. pour yëg podium. Euh, ñu ngi ci 46 28 ak 46 30 je crois que c'est une performance continentale. Mhm. je crois que bu ñu leen jàppalee wax dëgg yàlla mën nañu am dara lu gën la ñu amoon li ñu li ñu jëlee Asaba. Mhm. je crois que ci loolu la liggéey et tout le monde aussi converge vers le directeur technique national Pape Serigne Diène. je daal ñu ngi liggéey wax dëgg yàlla ci mën a réaliser ay performances parce que métti na li may wax tout le temps mooy euh, centre de formation. centre de perfectionnement du ma du ma du ma du ma tàyyi di ko wax xam nga bu ñu waxee ci football bi. gis nañu ci pour la petite catégorie. Euh, les U17 que ne dañuy toog ñu organiser leen pendant trois mois et cetera je loolu bu ko athlétisme amee je pense que dama koy waxal sax souvent discipline yëpp. bu Sénégal amee chance su am un centre de perfectionnement de haut niveau. Mhm. dinañu gis un autre visage du sport sénégalais. parce que loolu fédération bi loolu la bëgg parce que dem nañ benn tabax ko ñu fay rek les athlètes d'élite ñu mën a continuer la performance. parce que mooy li ma wax gis nga athlète mënul mënul réaliser performance xam nga boo xoolee athlètes yi nekk ci centre bi 10 euh, 23 am na ci performance bi keroog. chez mhm. les hommes c'est une performance de niveau mondial. Mhm. am na 11 13 il y a l'heptathlonienne Marthe Kowala qui a fait 13 une au 100 au 100 mètres et donc loolu c'est de niveau mondial te ñooñu dañu am centre boo xam ne fa la ñu nekk di entraîner matin soir. je crois que bu ñu fexee ba sénégalais yi am lu mel noonu na leen mën a permettre aussi capacité ak compétence bi suñu techniciens yi am ñu mën ko wone mhm. parce que su ma jëlee ku mel ni Amadem bi nga xam ne mu ngi Wakaam fa muy entraîner euh, bu ñëwaatee ci piste bi. Mhm. war a indi te mhm. Amadem fexe na ba indi une championne d' Afrique. petite catégorie Salissar. qui est une qui est espoir au Sénégal actuellement. donc bu ñu permettre ba nga xam ne dinañu mën a am. suñu athlètes yooyu ñu dugal leen fenn foo xam ne dinañ leen mm-hmm. gis un autre du Sénégal au niveau de l'athlétisme et crois que loolu daal lay ñaan pour les autorités c'est clair rare aussi il faut constater voir un journaliste pluridisciplinaire maîtriser football maîtriser euh, athlétisme waaw xam euh, parce que y a un Bamba foot en même basket Mor euh, il est foot en même basket. mais bon nous autres des fois da rek. mais foot foot foot foot Abdoulaye <laughs> c'est ta oui oui c'est c'est ma c'est ma discipline j'aime beaucoup l'athlétisme mais journaliste bu nekk nag xam nga tamit euh, loolu il wax ko parce que y a quand même environ une cinquantaine de disciplines kenn mënul nekk spécialiste. mënul nekk donc maximum trois rek nga ci mën a doon man football laa choisir ak athlétisme boo ma laajee dara si basket nag dama la naan demal gis moo Bassine wala gisal Bamba parce wax dëgg yàlla wax lu ma xamul. lu mu wax rek fu mu jeexalee man foofu lay tàmbalee xam nga euh, nit ñi. bu ñu defal bu ñu faral di appesantir ci euh, comparaison booy def comparaison rek yenn saa yi da ngay fausser yenn discipline yi. Mhm. parce que football dafa yore dimension sociale ak sociétale dëgg la. Mhm. on n'en disconvient même pas. athlétisme mun na yóbbu sa dëkk wala du athlétisme rek yenn discipline yëpp mais athlétisme moo tax tey jii ñuy wax mun na yóbbu sa dëkk foo xam ne doo ko sax imaginer da ngay joxe rek le kaa de Jamaïque Jamaïque ñun ñëpp ay journalistes ay journalistes lañu amul benn autorité politique Jamaïque boo ko waxee ñaari nit ñooy génn ñi bugg a di la wax Bob Marley ñi bugg sport di la wax Usain Bolt Usain Bolt tey jii fu mu yóbbu Jamaïque amul benn diplomate bu ko fa yóbbu kenn si ñun fii ne connaît ni le noo du premier ministre de de de Jamaïque et même xam nga euh, man lay ah bu njëkk ba Bob Marley moo taxoon sax ñoom ñu siiw ñaari président yi ak lu premier ministre d'alors ba ñuy xëcc Bob Marley pour mu ñëw participer ci benn concert pour réunir leen loolu ñëpp gis nañ ko mais Bob Marley moo taxoon tey jii boo waxee yu Usain Bolt moo tax lu mu wax keroog dangay gis suñu ay autorité sax di naw par exemple INSEP moi je pense que INSEP bi nekk France dañu war a fexe ba créer lu mel noonu fii benn centre de performance. xam nga dëgg la xam nga xaalis aussi bu ñu yaakaar ne da ngay dem ci kii bi ne lii la rek. xel bi xel la xam nga tey jii Qatar da nga mun nga toog di réfléchir nga ne mais man Qatar lan moo koy yóbbu dinaan day jëndi ay Paris Saint-Germain lan moo koy yóbbu mu organiser coupe du monde. organiser coupe du monde de daaw organiser war ko ren organiser rallye organiser moom champion daay moom ligue sax ils l'ont organisé. Ah oui parce que dañuy xam parce que dañuy xam ne ñoom dëkk bu gën a ndaw. ci Asie lañ bokk amuñu lu dul pétrole ak seen gaz liquéfié mais mun nañu sukkandi ci football bi ci sport bi plutôt yóbbu seen dëkk tey jii Qatar moo gën a siiw Arabie Saoudite tout à fait moo gën a siiw Irak Irak seen siiw yëpp xeex la Irak ak Iran yëpp la laayatala ak yooyu yooyu rek nga fay mais Qatar saa yoo ko waxee sa xel yëpp dem ci Paris Saint-Germain sa xel dem ci football ñoo koy organiser Manchester City ak leneen ak leneen donc dimension boobu noonu il faut ñu sóoraale su may delluwaat ci athlétisme nag dafa nekk ak football dafa wute xam nga football mun nga tricher boo sonnee mun nga taxaw waaye mun na la bëgg a paas sax nga def comme Cheikh Tidiane Gomis mun na def nga nëbbatu si beneen jour pour mu bañ la paas. <laughs> kon Cheikh Tidiane def. <laughs> non damay tooj rek la woon donc loolu def ci mais athlétisme arbitre bi bu nee prix départ la que yow kott ak sa couloir. tout à dafa nekk benn discipline boo xam ne dafa laaj rigueur. Mhm. bul xalaat ne aussi su ma ci investir. du mu am retour d'investissement foofu aussi suñ nit yi dañ fay faral di juum effectivement football bi nga demee fi coupe du monde passé rek premier tour lañ la éliminé da nga qualifié donc da nga qualifié cote nga ñibbi si premier tour on t'élimine tu rentres avec 5 milliards parce que football la xaalis bi FIFA daf ko yor FIFA moomu ko da koy réinvestir ci football bi. Mhm. qualifié nga nga dem football 3 matchs tu es éliminé tu avec 4 milliards. El Hadj Amadou Diop mën na remporter le ballon euh, médaille d'or mais Sénégal mënu ci am 1 milliard. mais mun na ci am ci notoriété loo xam ne mu ëpp 4 milliards bi. tout à fait moo tax nag mu am tey. ci centre yii nii ñu ñuy faral di defar nañ ci sooraalee loolu. ñu defar xale yi tàggat leen parce que athlétisme aussi il y a eu de euh, su fekkente ne danga nga euh, depuis xale ñu lay tàggat ci école bi soo maîtriser athlétisme bu baax. mën nga fa jaaree sax nga dévier soo duggee ci football da ngay nekk un excellent joueur. tout à fait foo munta dem ci adduna bi loolu la ñuy faral di seetlu. et fi may jeexalee mooy fédération bi ma gis actuellement mooy du fédération je veux dire mais entente bi. Mhm. lui il a été directeur technique national je l'ai côtoyé au championnat d'Afrique je l'ai côtoyé au championnat du monde un très bon technicien oui. Dieye ñëw gis nga. muy mhm. wax ci Dieye. tout à fait El Hadj Amadou Diaba benn moment ak fédération bi. muy Sarawali tout à fait soo xalee c'était chien et chat léegi. ils tirent tous vers l'essentiel. à fait loolu la xale yi soxla seen xel yi dal. tout à fait j'ai eu la chance d'être à Achaba. j'ai vu Louis François Mendy bii gis naa ko aussi Jeux africains à Rabat. Mhm. il a participé là il a fait une très bonne performance. Gina bii dinañ dem ba benn moment parce que on ressort c'est cassé quelque part entre la génération. des Ami Mbacké Thiam ak ñoo ñooñu takku Diouf ak ñeneen ak ñeneen benn moment on ressort c'est cassé donc il faut faire en sorte que loolu yëpp mu ñëwaat ba ñu de l'athlétisme. te si yoon bi. képp ku nekkoon ay Botswana jógee woon foofu ñëpp di di centraliser di ñëw ci Sénégal. loolu sunu dëkk la ñuy sukkali suñu athlétisme la ñuy sukkali man loolu laay ñaan autorité wax dëgg yàlla ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax. surtout si discipline bi nga xam ne moo c'est la seule discipline olympique doomu Sénégal jiite ko pendant quinze ans. ñu am ci une seule médaille d'argent ah, mooy El Hadj Amadou Diaba en 88 ñu am si une seule médaille d'or avec Amy Mbacké Thiam ñu amat ci beneen médaille en salle. donc loolu ak kenn dooy donc loolu c' est extrêmement important te Sénégal demoon nañu benn moment même perche même perche on a été champion d' en perche. très bien Cheikh Tidiane. waaw mais euh, argumentaire yi leer moo fi génn. gis nga man euh, fii am gis euh, xam nga nañ leen waxante dëgg rek tappale bi tant que mu ngi fi ñun du ñu avancé gis nga man damay ñëw rek ci discours Amadou xoolal moom mooy technicien bi man du ma technicien. moom wax na jàngoro bi lan moo ñuy jëlee fii yóbbuñu fële ci kaw mais wax na mu ngay koy répété ci biir waxam xam nga yéen ñëpp dañuy taw mais mais mu ngi koy wax te mu ngi formé en Afrique non non attends non ne centre de perfectionnement moom wax na ko et mais partout dans le monde mu ngi koy waxaat fépp ñu jaar dans le monde nañuy waxante dëgg centre yooyu moo tax def ay résultats waaye bu ñu buggee toog bu ñu buggee toog lii yooyu yëpp duñ ko teg euh, euh, duñ ko teg nga bëgg ci résultat doo am ngir yàlla ak yonte ba man defoon naa ne ñun ñii bi jaabaa amee médaille foofu gis nga ñun ñun dañuy raté souvent suñu sport dañuy raté tournoi au cas waa tournoi bi billahi wallahi taala xool leen yëpp absolument yëpp football on a raté euh, athlétisme ak Diaba ak Amin Mbacké Thiam ñu raté tournoi bi da ngay gis chaque fois benn discipline day dem ba fenn taxaw ne teg foofu xam nga lu muy soxla moom mooy moyen moyen lay laaj moyen boobu moo ko mën a leen a permettre la événement serré ñu doylu loolu laa lay expliquer non sincèrement qu'on se dise la vérité benn ñëpp ñu nangu ko peut-être yéen doon ko nangu waaye man li may nangu mooy leen lenn mooy que ñun ñii dañoo bëgg ndam te mënuñu am ndam nañu waxante dëgg naka la ñu amee ndam. non nag xam ñoo gën a xam ndam bi eh ñoo gën a xam ndam performance gis nga le haut niveau ñii ñëpp dañoo dem jàngi. indi. Euh, Ablaye Thiam dem na ay ay ay ay ay ay Jeux olympiques. ay compétition daje na fa ak ay ndaanaan mu ngi koy wax. yow dem nga fi coupe du monde man dem naa fi fu nekk gis nañu xam nañu ñun bu ñu laajoon sax ñu wax leen yoon bi waaye ñoom lu ñuy def. kenn du waa taf yëngal bu ñu jooyee toog ba si yàgg ne sànd euh, euh, lan euh, mais yéen fond de fond de relance du leen moom moo may kii bi résultat wu kii bi athlétisme boobu. tout à en son ah, temps ah du loolu moom moo ko ko may. ñu arrêté ko ñu daw da Daouda Daouda Daouda Daouda Faye moo ko arrêté. waaw waaw doo dégg tappale parce que tappale moo am ci dëkk bi ci wàllu sport. Ablaye Thiam dama lay wax benn affaire ñun neewuñu li football am moom la ñeneen ñi di am man waxuma loolu. dama ne xam nga lenn rek laa wax mënul nekk dama loolu mënul nekk loolu partout dans le monde football yàllaa ko may loolu kenn mënu ci dara alalu jënd la waaw voilà mais dama ne euh, ku lu waay yelloo nañ ko ko jox l'équité waaw moo doo dégg ma ko olofal on demande pas l'égalité on ne demande égalité mais équité absolument moo loolu yëpp moo indi tappale bi ci politique sport Sénégal mm-hmm. billaahi tant que ñu ngi def nii du ñu amaat ay ami mbekk cam mais li muy wax sànq nii c'est tellement pertinent que tey ñu ngi lëkkaloo Diaba Sarawale il faut reconnaître depuis qu'ils sont élus la fédération autant pour la Ligue de Dakar Ligue de Dakar il y a le travail ils sont dans l'action aujourd'hui Ablaye Thiam a salué le fait que euh, El Hadj Amadou Diaba comme suñu médaille olympique la tey mën na jàngal ku nekk ni ñuy dawee mu rejoindre équipe bi yow nga xam ni dëkk nga directeur technique liggéey mayu la tey nga continuer lii je pense bien moo taxoon en son temps mais toujours tu es dans l'action yaa ngi fi en tout le monde cette dynamisme euh, cette euh, cette entente là comme l'a dit Ablaye Thiam et c'est pas en plus pour aller vers cette performance recherchée surtout il faut le dire ñu ngi dem ci Paris 2024 JOJ au Sénégal en c'est pas ce qui recherché je pense c'est ce qui recherché absolument je crois que norme la parce que euh, gis nga fu féewaloo am rek xool nañu ba nga xam ne ambition la woon xool nañu ne bu ñu dajaloo ci la ñuy gën a am doole partenariat bi mu ngi fi ñu ngi waxtaan te li may wax mooy gis nga au delà même de de man lu may prôné mooy que am ay techniciens yoo xam ne dañu xarañ xam nga lu tax ma la koy wax. gis nga boo xoolee. pandémie bi dañu jàngi ñëw dañu jàngi non xam nga sax fa nga koy xamee. boo xoolee pandémie bi mois de mars la commencé daaw fekk na club yu bari ñu ngi nekkoon en compétition ñu arrêté lépp. Mhm. diggante bi nga xamee ne permettre nañu aux sportifs ñu reprendre. activité c' était pas évident. Non. pour nga gis li jaraaf am tey. li équipe nationale am tey. parce que même plage yi les gens pouvaient pas accéder aux plages pour s'entraîner loolu moo lay wan ne la suñu yi am nañu xarañte goo xam ne bu ñu leen mettroon en valeur mettre leen ci yenn conditions yi ci ngay gis entraîneur yoo xam ne dinañ leen di loo xam ne doone yow mën nañu génne ci sportif sénégalais du toll nii man foofu laay waxee c'est-à-dire dama bëgg ñu mettre en valeur nos techniciens yi nga xam ne dem nañu jàng bitim réew. Cheikh loolu loolu loolu loolu lay wax tout loolu laay wax. gis nga nag boo xoolee par exemple euh, un directeur comme El Hadj Diaba il même pas directeur du centre chaque après-midi chaque matin mi ngi ci piste bi ak athlètes yi. management. très bien Sara Wali donc loolu moo tax. nga gis tey waaw doo tax ma ne Euh, am nañu lendemain yoo xam ne wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, mën nañ ci am yaakaar. très bien yàlla on passe au troisième point il est relatif à la campagne coupe d'Afrique euh, de confédération africaine de football la présidence tey maître Augustin Senghor Patrick le sud-africain Ahmed Yahya ak Jacques Anouma quatre candidats enfin il a été entre guillemets blanchi ou rétabli je ne quel terme utiliser en tout cas il est revenu il a pris la présidence de la CAF muy Ahmed am Amat Amat est-ce que c'est lui qui détient la carte aujourd'hui ou pas peut-on un point sur la campagne actuellement entre les quatre candidats Ablaye Thiam. non. Euh, ci wolof. ci wolof li ma ci li ma ci mën a wax mooy il ne de pas aussi que aller plus vite que la musique. ah tu vas mal. voilà boo aller plus vite que la musique da ngay jaxase affaire bi. waaw da nga dañ lay tegal tegal. nga fecc funaanaa. waaw <laughs> non <laughs> donc mu nekkee booy daan naa ko man mënatuma ko mënatuma fecc. waaw ah, d'accord ah, ah. donc xam nga Ahmad euh, man finalement sax dama ko mujjee yërëm. ndeysaan. parce que diriger na CAF lu ñuy woowee président par défaut. Mhm. ci moom la dal. tout à fait. dañu waroon daaneel Issa Ayatou xamuñu kan la ñuy jël parce que Issa Ayatou dafa nekkoon tout puissant tere kii nga xam ne moom mooy Jacques Anouma duggaat ci kii bi parce que dafa ne woon képp ku musul ku nekkul ci comité exécutif. doo mun a bokk. ñu nekk di wër di wër di wër di wër di wër ba tombee ci Ahmad ñu ne ko kii kat il est là-bas donc mun nañ ko jël ñu def fameuse réunion mooy COSAFA mhm. mooy zone Afrique du Sud ñu dajale leen foofu FIFA nag duggal ci loxam bu baax a baax a baax a baax ba daaneel ki nga xam ne mooy Issa Hayatou Issa a ay ay à Addis Abeba mais président bi euh, préparé wu loolu démb wala barke démb am na benn journal projet euh, bu def enquête bu mot ci dix pages. Mhm. di wax naka lañ ko daanale dugal ci sax ay ay xale jigéen sax dañ ko ko doon jox di ko filmer te ko te loolu Égypte moo ko njëkk a def. tout à defal ko loolu. balaa muy dem man maay wax de journaliste bi mooy wax. Égypte bu paree ci moom Maroc def ko lu mel noonu te affaire yi denc di ko ko chantage loo léegi nii ñu mettre lu ñuy woowee une commission de gouvernance sur recommandation de la FIFA doomu Côte d'Ivoire di maître Kizito ñëpp xam ko ci probité intellectuelle ak moralam. moo ko jiite mu ñëw jiite ko. li jaaxal nit ñi yëpp nag mooy ku nekk wax na man dama bëgg nekk candidat Augustin Senghor wax nga ko Patrice Motsepe bu Afrique du Sud Ahmed Yahya bu Mauritanie ak ki nga xam ne Jacques Anouma bu Côte d'Ivoire Ahmad dañ ko excluroon parce que dañ ko suspendre cinq ans yoo xam ne du jege football ni au niveau continental ni au niveau de chez lui dañ ko dindi mu jël affaire bi yóbbu ko TAS tribunal arbitral des sports ba tribunal arbitral des sports waxul ne defu ko waaye dafa def lu ñuy woowee en droit en droit suspendre décision bi nga xam ne commission éthique bu FIFA. génne na ko teg na ko parce que lu tax mu def ko loolu ci yoon. comme xamuñu ndax dinañ ko setal le 2 mars xamuñu aussi ndax duñ ko setal hypothèse bi nga xam ne suñ ko setalee ëllëg ci biir le 2 soo ko bàyyiwul mu nekkaat président CAF ce qui veut dire que indil nga nga ko ay gàllankoor yoo xam ne ñoom Augustin Senghor ñu ngi nekk di def campagne te mënul def campagne moom. Mm-hmm. mais li jaaxal aduna mooy bu ñu demee 15 janvier passé Afrique ñu def réunion comité exécutif bokk na si ñoo xam ne moo leen tànnoon xam nga Augustin Senghor dañ ko fal mhm. ñeneen ak ñi dañ fal ñeneen ñii nag moom moo jël ci pouvoir discrétionnaire am maanaam Cheikh Tidiane fal nañ la ba pare nga xool ma ma nekk sa xarit nga ne ma lay kaay liggéeyal ma gis nga ñu mu tànnoon pour ma liggéeyal ko ñooñ ñoo taxaw nee ko dootoo fi nekk président génnal li ma lay wax ni c'est un comité exécutif junj nag doy na boroom suivez moo œil <laughs> comprendre léegi ñu génne ko ñu génne ñu génne ko ci kii bi comité exécutif bi bañ ne FIFA moo ko ci mais damay rappeler rek ñaari article tax ci droit lañ nekk effectivement article bu FIFA statut CAF plutôt moom moo jox commission de gouvernance bi nga xam ne doomu Côte d'Ivoire moo ko jiite mu saytu képp ku bugg a dugg ci comité exécutif CAF. ku bëgg nag président. article 27. point cinq bu statut FIFA moo ne képp kuy dugg ci conseil FIFA ñun dañ lay saytu donc en dernier ressort waaye Ivoiri kii Ivoiriens yi bu ñu defee suñu réunion ba pare dañ ne Augustin Senghor yow ak Jacques Anouma seen ñaari candidature amul benn problème kii nga xam ne moom mooy Patrice Motsepe ak ki nga xam ne mooy mooy Ahmed Yahya am na lu ci lëndëm dinañ leen woo le 28 janvier ñu saytu ko bu baaxee ñu bàyyi leen. bu mu defee loolu ba pare ci ëllëg si comité d'urgence moo woote doomu Congo di Constant Omari moo ko jiitee nee leen léegi yéen jël leen leng yëpp te pourtant ñun yéen nañ faloon de nee ñu nañ saytu jël leen leng yëpp ngeen jobbal ko FIFA moom mu tontu leen mu leen li ngeen ko defee du nii man du lii mooy sama prérogative te dinaa def sama liggéey bu mot sëkk ñuy xaar liggéey bi génn le 28 FIFA jiitu ko vingt 26 ne léegi yéen ñëpp ay candidat ngeen te damay rappeler benn fee rek lépp lu ñuy def fee du ñu def benn commentaire mm-hmm. article vingt bu comité d'éthique bu FIFA moo ne Ahmad Yahya yow mi nga xam ne yow yaay jiit Ahmad Ahmad di doomu Malgat Malga euh, Madagascar yow yaa jiite kaaf dem nga umri bi ngay dem di umri danga jël xaalis boo xam ne kaaf moo ko moom nga jëlal sa bopp billet d'avion nga dem ànd ak ak ay environ quinze personnes nga yóbbu leen yéen ñëpp umra donc waroo def loolu ñu daaneel ko ci article boobu plus article 15 plus article 28 donc su fekkente ne daaneel nga ma parce que jël naa xaalis bi nga xam ne kaaf moo ko dem ma demee ko mag catholique ñu ngi fi demuñu Rome juif yaa ngi fi demuñu Jérusalem bois sacré sax mun nañ fa dem il y a des gens même qui sont des athées xaalisu kaaf nag amul religion. Mm-hmm. mu def loolu ñu bàyyi Ahmad Yahya nga xam ne doomu Mauritanie la te moom tamit bokk na si ñu dem te bu mu demee xaalisu kaaf la demee. loolu yëpp nëpp nañ ci wax ci dara donc fi may fi may fi may fi may daanalee rek mooy après FIFA léegi kenn laam-laamewul dugg na ci biir dugg na ci biir nu mu defee woon ak Ahmad pour fal ko daaneel kii noonu lañ bugg continuer léegi parce que seen ñaari candidat liñ ñu doon xalaat c'est diggante ki nga xam ne moom mooy Motsepe ak Ahmed Yahya Ahmed Yahya ñoom ñaar ñooñu seen candidat amul laam-laamee amul FIFA du damay dëgg sax yenn saa yi même sunu sunu sunu mbokk bi di Fatma Samoura di naan woy FIFA du voté FIFA du voté moom keroog déglu ma rek moom amul benn journaliste sénégalais mooy Fatma Samoura amul benn journaliste sénégalais bu nekk fii bu kontaanul keroog bu ñu ko falee secrétaire général pour la première fois dans l'histoire amul benn sénégalais bu kontaanul ci loolu donc bu ñuy wax personne ne va inti ne va insulter notre intelligence tey jii Sénégal moo soxla man c'est pas une histoire de Senghor c'est une histoire de état du Sénégal tout à fait parce que Senghor bu Macky Sall bu taxul woon nekku jox naa la possibilité pour nga dem bokk FIFA loo ci CAF loo ci mënta wax bokk nekkul rek sport c'est de la diplomatie c'est le rayonnement de notre pays tout à fait c'est l'image de notre pays qui est en jeu donc yooyu bu taxawee képp kuy nekk doomu Sénégal en tout cas man c'est comme ça que je vois les choses les gens nag sont libres euh, chacun est libre de bi ci doxalin ndax war na nekk war war nañu ko bañ. xam nga gis nga man euh, xam nga man euh, affaire bu ma ciy wax sax man sama xol day tàng xam nga lu tax sama xol di tàng euh, comme ni mu ko waxee rek présidence président par défaut buy moo ñu indil problème bi yëpp nañ waxante dëgg ñun ñëpp man de bokkoon naa ñi bëggoon pour ayaatu dem. parce que doo doon nelaw rek. du seetaan dara day nelaw rek di di kii rek. waaye yàgg na sax 29 ans c'est trop. doo dégg non doo dégg man d'accord naa ci. waaye nag bu ma géntoon ne nii lay dem. billahi du ma d'accord mu dem bu ma ko géntoon du ma d'accord kii ni ko tubaab di waxee fantoche la. Ahmad Ahmad bi fantoche la. marionnette la dañ ko doon wala euh, marionnette dañ koy jël def ko nii defal ni defal ni ba tey jii euh, léegi fii. ba lu euh, FIFA lu ko mais mais FIFA li mu def dernière euh, ci année yi passé euh, CAF sañ na ko woon def CONCACAF wala UEFA wala keneen sañ na fa wax wax dara waaye loolu laa leen di wax tappale baa ngi noonu léegi nag ñun ne léegi nag man xam nga man lu ma bëgg man man nii man maay wax man Cheikh Tidiane man sama continent la dama bëgg sama continent dama ne président bi nga xam ne moom moo ñuy fexe moom mooy fexe ba dindi loolu man je suis avec lui. tout à fait loolu man loolu loolooy sama problème. man leneen du sama problème bu ma kenn dugal ci leneen xoolal man gëw ma lii xam lu ma gëm mooy que mooy que mooy que kaaf xam ne que kaaf la. dégg nga mu bañ a am euh, FIFA di dugal loxoom di koy naan defal li defal li et puis surtout si Tidiane li nga wax c'est d'autant plus vrai nit ñi bu ñu taxawee di naan way euh, suñu kiiwul FIFA duñ jox xaalis si FIFA ñemewul ba jox xaalis xanaa xamuñu ne. xaalis bi FIFA yor kaaf ci FIFA la bokk UEFA bi nga wax ci FIFA la bokk moomul xaalis bi c'est voté en assemblée général at bu nekk da ngay génneli plus de deux cent cinquante mille dollars nga jox ko chaque fédération les deux cent onze fédération li nga wax am na solo trop li ñu ñemewul def UEFA ñemewuñ ko def CONCACAF ñemewuñ ko def comme CONMEBOL ñemewuñ ko def AFC ñemewuñ ko def OFC lu tax ñu koy def Afrique Afrique parce que Olof Ndiaye mooy faral di wax uude nu mu la gisee noonu la lay óolee su fekkente nag nit ñi ñàkk nañu fulla ak fayda ak jom nga dund esclavage déglu ma rek nga dund esclavage nga dund traite des noirs nga dund nga dundu colonialisme nga dundu ajustement structurel même vaccin bi dégg dañuy vacciner adduna bi yépp ba pare ñu dogg ñëw si ñun léegi benn tubaab jógee fële nee leen non non ñun ñoo leen di tànnal ku leen di jiite ñoom ñuy taxaw di ubbi seen bët ñu xam loolu yépp ñu ko ci bàyyi rax ci dolli am ay africain nègre de service ak négresse de service di accompagner loolu loolu seen problème la mooy li ma la wax rek uude nu mu la gisee noonu lay óole euh, fulla nag mooy jaay Dakar wala yi aussi ñoo koy wax nit fi may jeexale fi nga baal ma nga baal ma fi may jeexale mooy le jeu bi nga xam ne